mu mel ni dañ koy euh, tàmbale ak euh, Walfadjri quotidien. Walf quotidien mu ngi ñuy jàngatal assemblée nationale ak euh, jaxasoo ga ci am yéen kabi di Walf quotidien dañu xam lekk bureau assemblée débat d'orientation mi nga xamante ne budgétaire bëggoon nañ ko faa amal dañ ko mujjee sax gantal Abdou Mbow fippu ci assemblée nationale moom mi jiite groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar xam le ne nii rek la mun a demee ndax Ousmane Sonko premier ministre moo wormaalul moo joxul cër bile pencum ndaw réew mi bokk na ci tamit waa groupe parlementaire yéew wi askan wii tontu nañu gis ne assemblée bi le li ci eh, gën mooy tas ko tasar ca na mu gën a gaawee Abdoul Mbaye eh, doonoon fi premier ministre ci jamono ak Moubarak Lo eh, xam-xamam jëm ci wàllu koom ñoom ñu ngi joxe ay pexe yoo xamante ne xëy na bu ñu faa jaaree coow la ca pencum ndaw réew mi ba ñu muñ faa dalal Ousmane Sonko mu def fa déclaration de politique générale am. technicien nag day baax bu bu la téyelee journal mu lay xool ndax léeg-léeg da nga ko yittewoo mu sëgg doo ko gis te yittewoo naa ko del siggi Sud Quotidien <laughs> yéen ki abi Sud Quotidien mu ngi ñuy dégtal assemblée nationale ak li nga xamante ne moo fa xew premier ministre mañ fa fay séntu euh, ngir mu amal fa déclaration de politique générale waaye nag ba léegi yembagul majorité ba bloqué nañu liggéey ba bu ñu sukkandikoo ci Sud Quotidien ne la ca waroon a am yëpp Abdou Mbow ak ay naatangoom gis nañ ne daal bile assemblée euh, daanaka euh, gëdd ak cër ga ca war Ousmane Sonko joxu leen ko dafa na saxal assemblée nationale ba tax nañu doxalee 人。 acca bu ñu jógee site quotidien dañu dem ci yéenekaay bi di eh, Tribune. mangoog eh, Tribune ne assemblée nationale lank na ne du dalal eh, premier ministre Ousmane Sonko bureau assemblée nationale daanaka fipp nañu fas yéene jaamarloog premier ministre Ousmane Sonko yéenekaay bi ne bu ñu deful ndànk daañu soobu ci crise institutionnelle ngoo xamante ne ci jamono ji mu ngi raam te bu ñu deful ndànk mun naa dem ba xajamal lu bari ci nguuru ko Bassirou Diomaye fay las yéenekaay las polémique coow li ci déclaration de politique. général abdu Mbow moom wone ci euh, jaaxleem jàpp na tey daanaka dañoo am mbetteel ci nguur gi fi ne rawatina Ousmane Sonko premier ministre na muy doxaleeg fa mu dëkkal assemblée nationale euh, gannaaw bu mu xam ne assemblée bi la bu fekkee ne euh, sàmmontewul ak charte ya ko tënk mun na am sax mu amal déclaration de politique générale fu mu ko neexee ak ña ko neex mu jàkkaarloog ñoom loole nag la ñu gis ne warta mun a am na ñëw wuy si assemblée nationale waa Benno ñoo waxee le soleil yéen kay le soleil wax na ci déguerpissement ña ñuy jël ci xàll yi rawatina marchand ambulant yi yéen cabinet premier ministre wàcc na démb ca euh, fi nga xamante mooy Colobane Ousmane Sonko jot naa nemmeeku lañ fa jot a amal masawu na euh, ñi nga xamante ne mooy marchand ambulant yi xam leen ne daañ leen taxaw ci financement ci wàllu deer ak yeneen ak yeneen waaye as Bernard ak la fa xew ci coowal suuf wax na seddoo suuf ga ca am mu joxoñ ca nguurug Macky Sall ga woon bés Euh, bataille maanaam euh, fantasiro gi dox ci diggante Pastef ak taxawu Sénégal bu Khalifa Sall jeexagul la koy firndeel mooy Colobane démb euh, daanaka premier ministre Ousmane Sonko ma nga foon ngir nemmeeku mbir ya xam le ne dañu war a dawal yërmande ci jaaykat yi rawatina ci marchand ambulant yi njiital Pastef mel ni ku yëgut circulaire gi nga xamante ne jëloon nañ ko ci ndajeb conseil des ministres kii di jëru ngi ñu dénk wàllu kaaraange bi réew mi jotoon ko xaatim jox ko gouverneur yeeg Euh, yéen cabinet loole nag moo jara wax ci jamono ji wax ji wax ji mooy Ousmane sonk ne bëgg na euh, gindi euh, jaaykat yooyu la yóbbu leen ca DER ñu fexe ba am fa financement mun a wéyal seen i koom. lu aju itam ci le quotidien. le quotidien desandi ci xolu Ndakaaru ak nañ fay yëkkati ca Kolobane nag jëwriñ gi ñu dénk premier ministre Ousmane Sonko jàkkaarloog marchand ambulant ya jot leen a masawu waaye nag foofee nag ca Kolobane jot nañ ko fa yuuxu yenn ci marchand ambulant ya jàpp ne mbetteel la ñu am ci nguurug Bassirou Diomaye Faye lañ leen diggoon ak li xew danaka wute na lool am na fa ay jaaykat yoo xamante ne jot nañ faa tàccul itamit Ousmane Sonko premier euh, ministre. yor yor. yor-yor bi mu ngi ñuy dégtal euh, suuf seek nañ ko akimoo ci corniche ouest bu ndakaaru njiitu réew mi Bassirou Diomaye fay fas yéene daanaka delloo plage yi tefes gi askan wi Anse Bernard la fa xew doon lu jaaxal ñu bari premier ministre Ousmane Sonko ma nga foon ne dañoo sax saxe suuf soosee dañ ko séddoo euh, foofee ca plage ba. ca bu ñu jógee foofu dañuy dem ci info. l'info yéen kaay bokk na ci li nga xamante ne daanaka Ousmane Sonko mel ni ko bëgg yërmande am euh, ci nañuy marchand ambulant yi yéen bi moo ñu ko yéggee ci xëtam bu njëkk am na ñu ko jot a déglu démb ca Colobane waaye nag am na ñu ko jot a tànqamlu ca googule bërëb source a gat sa gat sa la ñu ne moo xew ci assemblée nationale daanaka euh, nguruk Bassirou Diomaye Faye ak majorité parlementaire gi fi ne ci jamono ji neexatuñu ca pencum ndaw réew mi yéene kaa bi moo ñu ko yëggee yéene bi ne moom Ousmane Sonko daanaka toj ña euh, demb ca euh, fi nga xamante ne mooy Colobane gannaaw bu mu xamle ne yëf yi de ko bett xamul lu ko sookeek lu ko wundu te moo ne de gouverneur jotoon na amal circulaire ci weeru mai gi ñu weesu jagleel ko préfet yeeg maire yeeg jaakati muñ cee jot waaye nag euh, mel ni Ousmane Sonko yëgut li xew euh, ñenn ci jaaykat yi jot ko ko fàttali mu ngi ci yéen ak bi di euh, Source A. 24 heures 24 lu aju ci liggéey ga ñuy amal ci wàllu lotissement rawatina tamit ci asbernal njiitu réew mi Bassirou Diomaye fay jël na dogal dakkal lépp mu ngi ci yéen ak bi nga xamante ne mooy 24 heures Ousmane Sonko premier ministre sàkku ci transparence fexe ba dakkal itamit li nga xam ne moo xew ci agence yeeg bokk na ci convention yi. fi am ak wàllu publicité mu ngi ci yéen a di 24 heures. réew mi quotidien réew mi quotidien desandi ñun ci réew mi meek plage yu Anse Bernal ak nañu caxat caxatee suuf sa seddoo ga ca am doon lu jommal première ministre mi xamle ne tey nguur gi jël na matuwaay te duñ ci yox yoxi benn yoon dañu fexe ba plage yooyu la eh, delluwaat ci askan wi. Euh, critique euh, critique xëy dalal jëru nga ñu dénkoon wàllu ma ca nguuruk euh, Macky Sall Abdoulaye Diouf Sarr mu ngi ñuy jàngatal tolluwaay réew mi jàpp ne Bassirou Diomaye Faye moom collectif institution yi ci jamono ji xam ne nguurug Macky Sall yi tamit bàyyiwuñ fi jafe-jafe yéen cabinet jafe-jafe ga mu am ci jamono ji Mamadou Lamine Massaly tekki na ndombol tànkam doonatul PCA bu ONLP e, fas yéene naa jàmmarloog nguurug Bassirou Diomaye Faye l'évidence l'évidence xëy du ñu jàngatal ñoo xamante ni ña nga woon ca nguurug euh, Macky Sall ga woon tey ñu tekki ndombol tànk laata ñuy tekki seen ndombol tànk yéen kabi xëy duñu ko jàngatal ñoom ñetti ñi le daanaka luñ ci jublu mooy euh, bale fa ñu ne woon. Euh, Dakar Time Dakar Times xëy du ñu jàngatal tolluwaay réew mi daanaka jàngat gu yatu moom la poète bii di Lamine Sall amal Mamadou Lamine Amadou Sall jàpp ne juróomeelu république gi ñu ne ci jamono ji euh, ci lu matul euh, ñetti weer ëmb goo xamante ne ñetti weer daanaka ci la toll ñu bëgg ci séentu doom ci saasi doon lu ko jaaxal rawatina tolluwaay réew mekk ñi doola fa lu bees ci boppu réew mi. bu ñu jógee foofu nag dañuy ñëw ci le mandat Kolda mu ngi li nga xamante ne mu aju ci wàllu jigéen ñi eh, seen eh, néegu sëy fii ci réewum Sénégal ak condition ak lañ cay daj eh, ak ak ak yelleef gañ leen war a jox yéen bi moo ñu ko yëggee waaye nag lamb jekk Gris Bordeaux ma ñu ne ñàkk na kombaam ganam gaañu gaañu gamu am digganteem ak Ama Baldé la ñuy jox ndam la zos moom daanaka dégg na mu muñal démb luy njàggo moo ko daan waaye nag Ada Fass daan guy gi ko sempi doot ko daan yéen cabinet tax na mbër mekk ak lamb ji démb combat Gris Bordeaux Ama Baldé tàngoon na jër ak ay kurpeñ. stade yéen kaay stade mun naa tàng jër ci euro 2024 ak huitième de finale yi Belgique ak France ñoo ci fas yéene jàkkaarloo Portugal ak Slo Slovénie yéen cabinet ñoom ñaar ñaari kàngam lañu ci wàllu football mun nañu jàpp ne ngoonu tey jii football mun naa feeñ eh, ci huitième de finale euro 2024 yem ak fu ñuy jeexalee tënk yéen kaay El Hadji Mouhamadou bi tey daañu ci dikkaat incha allah na mu gën a yaatoo Oh,